salaam salaam sama gaay Sonko dey elem elem ziar naa la ndey giraan mon Yoro mon ziar naa la bu wér eh babakar mo moy suñu maabu wa babakar del noppalu madam sani madam Sané ziar naa la Sané Kaja eh Kaja ba ma nag no def madam Sané ziar la ana sama jarbat bi kalidu kalidu ziar naa la bu wer ziar naa la bu wer wer wer wer ziar la bu wer voilà def ben la ndaw rek Ben la ndaw Waat li nga xamante Bay programme yi nga xamantene mu ngi am presque naa ne presque 2 semaines ngi ni. jaar jaar no def leen Amadou Fall jaar naa la ay sëb gal ay sëb noonu voilà ñi nga xamante ne ay programme yoo xamante ne depuis presque euh, capitaine la mon frère capitaine ziar naa la le grand patriote capitaine la ndeysaan naka baax jaara jaara naa la jaara waaw comme ni ma ko waxee rek euh, waxtaan ci actes yi nga xamante ne gaa ngi koy posé euh, depuis semaines yi ñu génn yëpp ndeysaan que ça soit mi VAP bi ak euh, vacances citoyennes bi nga xamante ne ministre de la jeunesse euh, ndeysaan euh, mu ngi ci mu doon ay actes yoo xamante ne tey fu su ma ju su ma yaakaar naa yooyu tey jii nii ñun moom la ñu waroon gën a sax fësal parce que gis nañ depuis quelque temps ndeysaan suñu opposition bi gis nañ ni ñoom fu mu nekk nii ndeysaan si nekk mooy maanaam yàq si lu ñu nekk mooy taxaw mooy ak lu ñu fi mënti def ci lu baax ci li nga xamante ne euh, day jëmale askan bi kanam ñoom taxaw nañ ne ñun dañ koy yàq te loolu nag c'est voué à l'échec waaw loolu c'est c'est voué à l'échec parce tey jii nii. comme ni moo ko waxee sénégalais yi ñoom ñoo tànnal seen bopp sénégalais yi ñoo tànnal ñu fi tey ne ñun yéen lañ ñu wóolu lañ faral te yéen lañ jox li nga xamante ne mooy ñu gis depuis quelque temps man mu nekk nekk waaw ñu ngi mel ni ndax euh, signalement yi nga xamante ne gars yi ñu ngi koy def waaw tey suñu xoolee li fi am démb rek gis nga yàlla ay mbiram dafa doy waar tey apéris yi mooy seen député yi tey ñoom lu ñu nekk di kaas ni yëpp di ci rey seen bopp pourtant situation bi yëpp ñoom ñoo ko créé waaw situation bi am fi mu nekk nii lëpp lëpp lëpp lépp lépp président Ousmane Sonko ak président Diomaye amul dara loo xamante ne ñoom def nañ ko ci ñoom tey jii nii président bu ñëw ne ci loolu man laay taxaw respecté ko ñu ne ko non non da ngay def comme ñeneen ñu doon def te ñoom ñu changé loi yi xam nañ bu baax changé loi yi fu nekk nag mooy seen soi mercenaire man ndax ma journaliste instant nii ñu ngi jéem a manipuler façon la bu nekk pour jéem a jaxase li nga xamante ne mooy xelu li nga xamante ne mooy askan mais ma leen wax comme ni ma ko yàgg waaye président Ousmane Sonko amul benn yoon boo xamante ne même ba mu nekkee opposition bi laa la wax mus na violer li nga xamante ne mooy loi lépp lu ñuy def tey soo def ko mais lépp koy def si yoon la koy teg jël ko jaaxal doole jël loi teg ko fële oui signal maay la signal maay la kay signal maay la wa waaw wa signal maay la gars yi signal ko ba nga xamante ne fu mu nekk pour def laay sax c'est trop problème maintenant mu ngi nonu ma ni wo encore une fois di leen wax ben affaire ngeen am confiance présence man Sonko démb doole ji ñu nane doole état ñom seen loxo la nek ñom di ko violer ay loi di ko utiliser nu leen neexee tey jii nii bien vrai que ñun ñoo yor doole ji mooy doole état boobu noonu mais na leen leer ne Ousmane Sonko du mus a jël président Diomaye du mus a jël li nga xamante ne mooy doole état di ci violer li nga xamante ne mooy loi kese loolu fokk ngeen xam ko da ngeen xam ne ñu ñu ko sëkkal nii ñoom lii moo leen dese li leen dese mooy lan mooy yuuxu yi ñu nekk def nii manipulation yi ñu def nii nekk def nii parce que li ñu bëggoon mooy lan président Ousmane Sonko ñoom lenn rek moo leen ñor mooy seen mandat cinq ans yi nga xamante ne tey jii nii loolu kese moo leen ñor santage ngeen di gis ni yëpp du lenn lu tay ji ni pour président Ousmane Sonko ñëw waxtaan ak ñom wax len tay ji ni jox len ay manam sécurité sen mandat lolu kese kese kese rek mo len ñor du lenen ha du lenen kon nak ñun nañ len ñom ñu ñun. nañ leen bàyyi ñoom ñu xataraayu ñun ñu nekk ci li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy acte yi nga xamante ne gouvernement bi mu ngi koy positif boobu ba léegi ndax bëri na ci li nga xamante ne ñun war nañ ci débattre bëri na ci li nga xamante ne ñun war nañ ko fësal ñoom nag suñu yaakaaree ñoom ci seen média yooyu noonu lañ mën a defee chantage ci li nga xamante ne mooy état bi ñoom ñu ngi nax seen bopp. kon tey jii nii comme ñun nu ñu koy defee nañu fësal liggéey bi nga xamante ne gouvernement bi mu ngi koy liggéey boobu ba léegi que saa soit tey soo demee ci université yi xale yi ñu ngi leen di fay seen bourse yi université baa ngi waaj a tijji. rupture yooyu noonu lañ soxla tey soo ñëwee ci euh, bor bi nga xamante ne amaloon nañ ko opérateur euh, économique tey soo xoolee ji yi nga xamante ne ñu ngi koy joxe tey soo xoolee vacances citoyennes yi nga xamante ñu ngi koy waajal soo xoolee tey VAP bi nga xamante ne xale ñu ngi ci yooyu noonu c'est des actes yoo xamante ne fu mu ñun ci loolu lañ war a poser suñu débat ñoom nag ñu bàyyi leen seen caaxaan yooyu parce que ñoom tey soo leen defaloon ay robinet yoo xamante ne day génnee ay meew ak lu nekk laa wax soo leen ko defaloon tey du tere saa yu ñu xëyee ginañ jéem a yàq dinañ jéem a jël jaxase xelu sénégalais parce que ñoom mooy lu ma leen wax lenn rek moo leen ñor mooy ñoom seeni intérêt loolu kese ñoom ci loolu la ñuy dox kon nag il est temps ñun ñu diriger li nga xamante ne mooy débat bi te bañ leen topp ñoom ñoom ñun ñu bañ leen topp diriger débat bi mooy lan fexe ba fësal li nga xamante ne gouvernement bi mu ngi koy liggéey depuis booba léegi may euh, ma koy ma koy ma may may may remercier ministre de la jeunesse ci vacances citoyennes yi nga wax ci fa lañ jëm mais juste encore foofu tamit ñu ñu ñu ñu ñu andi tuuti leeral ci fi nga xamante ne mooy euh, euh, démb ci affaire u ministre de la jeunesse bi parce que jàmbaar la te gis naa ni fi ñu jëm nii macha allah gëm naa ni nawet bi ren xale yi gën nañ ci dugal seen loxo bu a baax a baax a baax a baax parce que démb ndaysan dañ doon waxtaan ak ay ñi nga xamante moy ses ses collaborateurs démb waxtaan nañ euh ñun ak ay ndeysaan euh, xalé yi moy les les influenceurs ñom ñep ndaysan ñew nañ euh ci ndaje bi nga xamantene mom la woote won mais juste pour euh, rappeler ki nga xamantene moy ministre de la jeunesse gis nga xalé yi ni ngeen ni gis ni mais influenceurs ñom ñep ay jambar deug lañ ñoom ba xeex jotee dañoo xeex ndeysaan bàyyi seen lëpp ñii tëj nañ leen ci kaso ñii toroxal nañ leen ci voilà mu ngi noonu tey jii nii c'est bien bon euh, ñu nommé leen ay ambassadeur macha allah lu rafet la parce que tey jii nii lépp li nga xamante ne seen liggéey la lu ci ëpp ñu xale yooyu ñoom ñoo koy fësal ci li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi mu doon xale yoo xamante ne ay jàmbaar lañ.

même su nekkee ay contrat lay doon ngeen defal leen parce que da nga leen soxla woo leen pour nga liggéey ak ñoom mais di làkkatu des fois di di làkkatu comme ndax démb li may wax ci ci ci ci ci live bi wax naa leen ko man direct foofu laa leen ko wax yéen a soxla ndaw yi pour liggéey ñu nekk ay influenceur ñoom ñooy jënd seen connexion ñoom ñooy euh, nekk su le terrain lépp di xeex pour fësal su nekkee nag loo xamante ne la pour askan bi la ay setetal yooyu yëpp soxla nañ ci don de soi mais ci loo xamante ne su nekkee activité yoo xamante ne dafa am budget surtout mu am budget communication parce que soo leen demee ci télé yi da ngeen di fay xaalis soo leen demee ci rajo yi da ngeen di fay ay xaalis dafay baax des fois tamit ngeen jël ci budget boobu noonu jël si si ngeen jox ci xale yi.

yëkkati leen dara ngeen teg ci kaw ci parce que nous demuñ fenn naan jox leen ñu lii wala chaque jour ñu ngi liggéey chaque jour ñu ngi euh, le gouvernement bi chaque jour terrain bi tout ça mais soo leen voilà maa ngi euh, connexion euh, quoi voilà leen <coughs> ba soxla yi comme ni ci ay liggéey que ça soit mi ministère yeeg mi direction yeeg yooyu yëpp ngelawaay jéem leen teg dara ci loxo xale yi moo gën à chaque fois di leen woo ci ay liggéey suñu ñëwee ngeen naa ah affaire kat amul fay don de soi lañ wax c'est pas normal <coughs> parce que que soit ministre boobu noonu que ça soit ay collaborateurs am ñoom ñëpp. suñu liggéey ba weer dee ñoom ñëpp dañ leen di fay xaalis seen salaire kon nag soo leen liggéeyloo xale yi nga xamante ne ñoom laajuñu dara boobu ba léegi ñu ngi ci ñu ngi reyante ñu ngi def lu ñu mën jël seen connexion taal seen live <coughs> soo leen demee ba liggéeyloo xale yooyu ba pare yëkkati leen dara. que ça soit même su nekkee ay contrat defal leen xale yi contrat ngeen fay leen li may wax fii nag démb wax naa ko foofu noonu wax naa leen ko foofu noonu nee naa leen munu leen jël xale yi di leen liggéeyloo ci ay activités yoo xamante dafa am budget ba pare après ngeen wëlbati ko di leen leen di leen naan ay affaire bi ay don de soi la xale yi ba xeex jotee dañoo xeex ba reyante jotee dañoo reyante léegi nag munuñ continuer di daw ci don de soi boobu noonu bien vrai que ñu ngi koy def parce que saa yu wootee set setal wala ay activités yoo xamante ne la pour réew mi la xale yi ñu ngi ciy reyante ñu ngi ciy daw di ci def lu ñu mën. voilà <coughs> man activité yu may def yépp amul kenn ku ma ciy laaj xaalis. man maay paas maay jënd sama connexion maay dem vidéo maay def li may def yépp ñëw dugal ko fësal ko